nañu jàngi nañu jàngi nañu jàngi suñu diine ndax ñu raw الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد مبكي نيغلاند دي نيو دي لين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي ديل سوات اك ينتي جتاي حديث في اسلام تي في دي نان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق سي سوني ييب حديث بن ورونا جلتي مو حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أه، تعملي ونك في جتاي بن يوسف غامن يونت بي عليه الصلاه والسلام ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها دفلون وخنا يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا وخون سوني بروم سبحانه وتعالى دينا تالال لخوم غير نانغو tuubu ki nga xam ne dafa defoon ñaawteef eh, guddi gu jot dina tàllal loxoom ngir nangu tuubu ki nga xam ne dafa defoon ñaawteef ci bëccëg bi yàlla nangul ko tuubam googu ñu waxoon ne bu fekkente ne dafa wax ne suñu borom dafay tàllal ay loxoom même boo waxee ne loolu li ci jublu mooy jàppandal ak ubbi buntu tuub ci jaamam ñi ngir nangul leen seen tuub googu ndax tuub nekkul shay xissi nekkul lu physique loo xam ne lu muy jël ci ay loxoom la waaye jëf la joo xam ne jaam bi da koy jëf waaye jëf tamit dafay yëg mooy li mu wax rek ne ilayhi yasaadul kalimu tayibu wal amalu saalihu yarfauhu moo ne li nga xamante ne mooy jëf ju baax dafay jóg dem ci yàlla subhanahu wa taala bu demee itam yàlla da koy nangu léegi nangu googu muy nangu jëf ju baax ji jaam def loolu la wax ne yabsutu yadahu yàlla dafay tàllal loxom waaye loolu dàqonteewul ak tamit ba léegi ci alquran ak ci ay textes yu bëri ci sunna luy luy melalal yàlla di saxalal yàlla melokaan boobu nga xam ne mooy waaye nit ki déggin bu wér bi mu ci war a am mooy xam ne baatu loxo laf la mushtarak la boo xam ne baat la boo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo ci ay euh, mbir yu bari ci ay jëmm yu bari yoo xam ne benn jëmm buñ ko jëfandikoo bu nekk sens ba muy am du bokk buñ ko jëfandikoo ci beneen jëmm ja ca des moom ci jëmmam moom jëmmi baatu loxo boo ko dindi woon te askane ko benn jëmm doo ci mën a déggee dara du am benn sens voilà dafa am ay mbir yoo xam ne ay melokaan la yoo xam ne du ay jëmm yuy berul boppam di nekkal boppam mais melokaan lay doon ci jëmm nga xam ne mënut a beru léegi bu boobaa kon jëmmi baat bi képp képp képp képp mënoo koo jox sens voilà loolu comme loolu noonu la demee boobaa kon dootul amati ak fekkante ak ak nuroo guy am ci diggante jëmm yi nga xam ne ko koy askanale ndax jëmm ju nekk boo ko ca yóbboo lam fay mel ci jëmm jooju du bokk ak boo ko jëlee mu baat bi jëmale ko ci jeneen jëmm baat bu mel noonu nag kon des fois du indi confusion du indi ak nuroo guy am ci diggante jëmm yi nga xam ne nga koy askanale kon nga jël ko jëf jëmale ko ci yàlla la muy am ci sens ak teggin xaajul bay nuroo ndax day daal di méngoog jëmmi yàlla ja ca matam ak yëkkatikoom subhaanahu wa taala sori lépp loo xam ne ak doyadale ak ak suufe la sori tamit nuroog mbindeef ndax laysa ka mithlihi shay boo ko jëlee moom baat bi nga jëmale ko ci mbindeef mu daal di méngoo daal di jël forme bi nga xam ne moom la jëmmi mbindeef bi am kon bu boobaa fekkante ak nuróo du am ci diggante yàlla mi ngi ko askanale ak mbindeef mi nga xam ne moom nga ko askanale ndax baat bi ci départ wax nañ ne la mënoo ko jox sens bu fekkee moom kase moo nekk waaw léegi loolu bu fekkee ñu comprendre na ko loolu kon du mën a jël baat bi jox ko benn sens boo xam ne mooy melokaanu mbindeef ne loxo li muy tekki mooy lu melokaanu mbindeef ne loxo loolu lay tekki léegi ginnaaw bi nag boo ko jëlee jëmale ko ci yàlla ñu ne déet kon dey daal di nuroog loxo mbindeef loolu njuumte lu rëy la voilà yàlla waxul boppam melo melalu boppam melokaanu mbindeef mu daal di wax ne kon suñu borom subhanahu wa taala guddi gi dina nangu tuubu ñi nga xam ne ñoo ñaawaloon ci bëccëg bi bu bëccëgee itam dina nangu tuubu ñi nga xam ne ñoo ñaawaloon ci bëccëg bi li muy tekki kon mooy jaam ñi guddi ak bëccëg ñi ngi def ay bàkkaar guddi ak bëccëg ñi ngi def ay rëcc rëcc ñi ngi ñaawal ci seen diggante ak seen borom ndax muusi la wax mooy koo xam ne dafay ñaawal koo xam ne daa def lu mu warta def wala bàyyi lu mu war a def léegi loolu boobaa bu ko jaam bi xamee warul xaddi benn yoon ci tuub ndax saa bu fekkente ni loolu am na dañuy daal di xam ne kon buntu tuub mi ngi ci seen kanam ñu daal di góorgóorlu tuub والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا walam ما فعلوا وهم يعلمون yàlla ñi mu taggoon ci alxuraan mooy ñi nga xam ni bu ñu defee ay bàkkaar def ay ñaawteef dañuy daal di delloo seen xel ci yàlla daal di tuub jéggalu seen i bàkkaar te xam nañ ni amul keneen kuy jéggale bàkkaar ku dul yàlla kon amul feneen fu ñuy dem ci yeneen i bunt di ko fa di fëgg di fa sàkku njéggal di fa sàkku ñu baal leen seen i bàkkaar fu dul ci bunti yàlla yi muy bunti njéggal yi foofu lañ jëm kon ñu dellu ci yàlla daal di koy jéggalu bu ko defee suñu borom ne ñooña bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy continuer di nuur ci ñaawteef yi ñuy def te xam nañu li ñuy def baaxul li ñuy def ñaawteef la voilà waaye ay nit lañ yoo xam ni suñu juumee dañuy reconnaître seen njuumte dellu ci yàlla daal di koy jéggalu yàlla jéggal leen loolu kon nekk euh, ay qualité yoo xam ne qualité yu am solo la ci jaam bi yàlla bëgg ci ñun loolu bëgg ci ñun ñu am oyof ku toll noonu suñu digganteeg suñu borom ci di nangu suñuy njuumte di dellu ci moom di ko jéggalu mu ñuy jéggal chance bu mel noonu nag opportunité bu mel noonu nag yàlla mi ngi ko defal jaam ñi mu nekk fi ci jamono ju nekk bunt boobu mu tijji suñu diggante ak moom ngir nangul ñu suñuy rëcc rëcc ak suñu njumte mu ngi fi ba léegi ubbeeku képp ku jéggalu yàlla jéggal la ba bàyyi ñuy àgg ci ñaari ñaari jamono yoo xamante ne yu doy waar la benn bi dafay concerner kenn ku nekk ci ñun benn bi ñun ñëpp la concerner bi concerner kenn ku nekk ci ñun mooy nit ki saa bu tuubee jéggalu yàlla jéggal ko li fekk demul inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugargir yàlla dina nangu tuubu jambi bi gi jambi di jéggalu boromam diko sak mu jéggal ko li fek demul ba top tolu ci halatul xarxara muy dem ba nga xamanteni ruh ba ngay waja génn fofu bu fa tolle nga xamne dem na ba wax jati dok ruh bay génn nga xamne yaram ba danaka dundu desatu fa de rek mo fi nek muy soga wax ne fay tuub yàlla duko ko jéggal tuubam ndax loolu tuubu ñak pexe la yàlla bugul nak jambi di def tuubu ñak pexe nga xamne bu ko dara dese ci dundu du tuub بوكو جامبي ديفا يالا دوكو نانغول توبام بنين بي سي ديس موي بيم موي حتى تطلع الشمس من مغربها موي جامونو جي نيمي ديمي دي دوخ يالا ديف كو مو ام بن روتاسيون بو في ام تي سونو بلانيت بي اك جانت بي اك وير بي داو غيغا خامتاني دنج كوي داو دي جمال داوك بيسي اك غودي ني نيك تي لولو لول دي ليغا خامتاني لي تودي لو تان muy loo xamante ni daanaka kenn xamul lan la ndax nekkul loo xamante ni bi lu lu lu jëmm la lu ñu mën a xam wala dara waaye li muy tekki rek moom temps bi mooy dox gi nga xamante ni bi àdduna bi da koy dox jëm ci app bi nga xam ne yàlla defal na ko ko léegi loolu noonu dina dem ba ci mujjug jamono yi ci la fin des temps mu am benn bouleversement boo xamante ni dina ci am bouleversement bi ciy am mooy inversion boo xamante ni dafay am ci àdduna bi du rek ci valeur yi nit ñi di am ci valeur yi nit ñi di dund ci dem ba la baaxoon bon la bonoon baax ña baaxoon ñu jàppee leen ñu bon ñu bon ñu jàppee leen ñu baax ña dëgguwul ñu jàppee leen ñu dëggu ñi dëggu ñu jàppee ñu dëgguwul loolu noonu ñu ngi ciy dem si suñu société yi ak li nit ñi di dund ci valeur yi mais àdduna bi tamit dafay dem ba benn jamono moom te mu mel ne ku leen fekk si ci loolu jant bi ci penku bi la daan jóge di fenk di dox ba dem ci sowu bi noonu lay noonu lay noonu lay demee waaye dafay dem benn bis nit ñi di xaar jant bi génne ci penku bi mu génne ci sowu bi maanaam dellusiwaat léegi loolu bu fekkente ni am na mu nekk benn signe bu mag a mag a mag a mag bu bu nit ñi di xamee ne kon ndakate lépp dëgg la ndakate kon àdduna bi ci taxaw la jëm àdduna bi ci jeex la jëm te bu ñu fi jógee ci seen borom lañ jëm léegi nag bu nit ñi gisee loolu daal di tiit ñëpp daal di bëgg a gëm ñëpp daal di bëgg a jéggalu yàlla bàyyi lañ nekkoon yàlla ne bu xew-xew yu mel noonu amee ba nit ñi teg seen bët. ba nga xam ne léegi certitude lañu am ci yëf yi boobaa képp ku tub yàlla du la ko jéggal képp kutub yàlla du la ko nangul ndax loolu boo bàyyi boo boobaa itam tuub bu ñàkk pexe la yàlla dafa bëggoon lim lay wax nga gëm ko ci kaw kumpa nga gëm ko ci kaw kumpa sukkandiku ci firnde yi nga xam ne jox na la ko jaarale ko ci yonentam mu nekk lu wér péng loolu war laa doy tax nga nangul yàlla gëm yàlla ci kaw loolu yàlla loolu la bëgg loolu épreuve la bu ñu yàlla éprouvé ñun doomu aadama tuub gu mel noonu la yàlla bëgg ngëm gu mel noonu la yàlla bëgg mais ngëm go xam ne ngay dem ba gisal sa bop dedet motax yàlla waxon ne wa hal yanzuruna illa an yati illa an tatiyahum al malaika aw yati rabbuka aw yati ba'd ayati rabbik yawma yati ba'd ayati rabbik la yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha khayra yàlla lu mu ñu wax moy gaay yi ñi ngi fi di sàggan nanguwu ñoo dégg li len yàlla wax mel dañuy xaar mbir mu ñëw mbir mom di ñëw imma malaaka yi la wala seen borom wala firnde yu jóge ci seen borom ñëw ñu gis ko tek ci seen bët yàlla neena yawma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha khayra bis bi nga xamanteni bi ci la lenn ci say firnde borom di ñëw tegtali borom di ñëw bis bobu bis bu ñewé bañ gis ko ñom ñep tek ci seen bët bu boba ben bakkan dotul jariñu ci ngam gu muy gëm bu fekkente gëmul lu jitu xew-xew bobu loolu nag aaya boobu tekkee nañ ko ne mooy bu ñu demee ba jant bi daal di fenkee ci soowu bi fi mu doon soowee mu daal di fay fenk fenkee génn génnee foofu boobaa képp ku nekkoon ci kaw suuf nga gis loolu da ngay daal di gëm mais bis boobu mooy yow yawma laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha xayra bis boobu mooy bis bi nga xam ni ngëm gi bakkanub doomu aadama di gëm du ko jariñ bu fekkente ni gëmul woon lu jiitu loolu kon loolu nit ku nekk war na ci bàyyi xel bu baax a baax moo tax kon fi mu wax ne xatta tatlu achamsu min min maghribiha mooy bu ñu demee ba ci mu mujjug jamono ba àdduna yàqu ba nga xam ne daanaka léegi àdduna jóge fi bu ñu demee ba yàlla wane firnde yu mel noonu yàlla wane tegtal yu mel noonu jaam ñi gis ko teg ci seen bët nga xam ne àdduna daanaka la ci des bëreetul mu tukki ci la nit ñi di bàbbee ko di wax ne dañuy tuub waaye tuub la goo xam ne tuubu jaaxle ak ñàkk pexe la tuub la goo xam ne yàlla du ko nangu مودال دي واخني حديث بوب الامام مسلم مكو سولو في صحيحه مو تك سي بنن حديث موي حديث بي نيو جونجون لغي موي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه موي حديث بو خن مينتي صحيح البخاري صحيح مسلم بلغي دي حديث ابي هريره من يونت عليه الصلاه والسلام نينا كيب كو توب لاتا jant bi di fenkee fi nga xam ne fa la doon sowe nga tuub laata xew-xew boobu di am yàlla dina nangul sa tuub moo xam tuub gi nga xam ne tuubuk lislaam la wala tuubuk kéefér la tuubuk lislaam mooy ki nekk ci biir diine am ay rëcc-rëcc ak ay ñaawteef yoo xam ne def na ko muy tuub di jéggalu yàlla yàlla dina ko jéggal lislaam diine la joo xam ne dafa bëgg nit ki nekk en contact ak boroomam ndax nit ne yow doomu aadama ak yow ne yow boo jëlee lu jëm ci wàllu njéggal ak baalu teg ko ci loxoom fo am ci injustice am ci chantage am ci lu ne am ci ay yàqute yu bari lay jur lu mel ne tuub ak jéggal doomu aadama ne yow mënula koo yoral ndax matadi gi nekk ci yow moo nekk ci moom bu ko yoralee moroomi doomi aadaam rek aadamaam rek jëflanteem ak ñoom ak matadeem daldi ci feeñ alors que bu dee yàlla directement moom moo ñu yoreel tuub googu di ñu ko nangul di ñu ko defal tegu ko ci loxo nit tegu ko ci loxo malaaka wala bu boobaa ak matam ak yërmandeem da ciy daal di feeñ suñu diggante ak moom dafa ñuy noppal moo tax kon loola di tub ak jéggalu googu na ci nit ki dindi bépp mbindeef mu nekk digganteem ak boroomam mu koy ñaan yàlla di ko sàkku ci yàlla directement li muy wax di ko def yàlla nga koy gis li muy wax di ko def yàlla nga koy dégg amul lenn lu mën a dox digganteem ak yàlla subhaanahu wa taala ci loolu yàlla soxlawul keneen di ko jël di ko àggale ci moom mu mel ne comme moom la nit ñi di wax wala koy def xamu ko wala déggu ko koy dem ci moom di ko yaakaar ne moom nga koy jox ngir mu àggalee la ko ci yàlla yàlla ko ëpp yërmande ñeewante gi yàlla am ci yow moom amu ko ci yow xam gi la yàlla xam xamu ko fi la yàlla féete féetewu la fa li la yàlla mënal mënalu la ko kon boo ko jëlee teg ko ci loxo mbindeef ak doyadi daal da cay am koo xam ne dafay topp doyadi gi nekk ci mbindeef mooma manquement am ci yoo xam ne dafay dellu moo tax yenn religion yi nga xam ne bu nit ki defee ay bàkkaar day dem ci kenn ci kilifa ak gi di ko fa di confessé wu di ko wax ay mbiram pour kooku jéggal ko moom ci boppam moom mi wax na mi ngi lay jéggal soo moytul mi ngi def ay ñaawteef yoo xam ne yow boo ko xamoon jug romb ko fa dem sa yoon xam ne mënulaa jéggal du looy ñëw di ko wax sa moroomu nit di weer sa bopp di eh, xaawi sa sutura ndax wax ko sa moroomu nit mooy jàpp ne gisuloo yàlla boo waxee yàlla yàlla du la dégg mooy matérialiser bi ñu matérialiser yàlla ci jàpp ne yàlla daal genre benn jëmm la boo xam benn mbindeef la boo xam ne nekku fi li ñuy def xamu ko li ngay wax ak moom mënu koo dégg kon jaaral ci nit ki nga wax ko ko nit ki accepté li muy tekki mooy yàlla accepté na ko mu nekk benn représentation buy représenté yàlla à travers les humains loolu erreur bu rëy la da nga war a gëm ne yàlla matam waral na lépp lu jaamam ñi nekk guddi ak bëccëg mi ngi koy xam képp ku wax ak moom mi ngi lay dégg liñ koy ñaan mi ngi koy dégg te mi ngi koy nangu te soxlawul am ay intermédiaire ci digganteem ak ñun kon bu boobaa loolu dafa war a nekk ci diggante nit ki ak jaam bi nit ki ak boroomam subhaanahu wa taala muy jaam bi ak boroomam muy ñaan yàlla njéggal kooku di ko sàkku ci yàlla bu ko defee yàlla nangul ko ko kon loolu tamit lu jara jara jara bàyyi xel la ndax boo ko jëlee jox ko mbindeef mu jël ko def ko yëfi boppam def ko moomeelam di ci sax di ko sax di chantage nit ñi di ci di ci di ci di ci di ci faj ay soxlaam di ci def ay bëgg-bëggam di ci di ci di ci def yu bari yoo xamante ni lépp rek li muy wane rek mooy ñàkk mat gi nekk ci moom mooy daal di feeñaat ci loolu ñu ko jox ndax loolu du cëram loolu cëru yàlla la jéggale ak baale mbiru yàlla la du mbiru nit boo ko jëlee teg ko ci loxo nit yàqute am ca ba pare sonal doomu aadama yi tamit ndax nit ñi la ñuy soxla ci ñu leen di koy jéggal bis bu nekk bis bu nekk saa su nekk ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi benn nit mënu koo xam li fekk waaxuñ ba am fekk ko fa mu nekk toog di wax ak moom mu leen di dégg mënuñoo xam ci lu mënta xam ci lu ñuy nekk ba di leen mën a jéggal fa ñu nekk ak la ñuy def lañuy def xamu ko buñ ñëwee di ko ko wax itam luñ ko ci waxul xamu ko kon kooku a jéggal kenn kon lu jaam bi di jëmale ci ci boroomam la subhaanahu wa taala di ko sàkku ci moom directement moo tax kon mu ne li fekk jant bi demul ba fenkee fi mu doon sowe jaam bi bu jëggaloo yàlla jéggal ko xadis boobu xadisu abi horayra la di xadis bu màgg buy wane ne kon nit ki fu mu toll war na góorlu ci di gaawantu di tuub ndax xew-xew yooyu xamul kañ lay ñëw ci benn bi ci boppam xamul kañ la dee di ñëw mu bëgg a tuub ñu dox digganteem ak tuub ne ko ba nga waree tuub tuubuloo walla xew-xew yooyu di am ci bouleversement yooyu di am ci mujjantalu jamono jékki-jékki yenn xew-xew yi am yoo xam ne nit ki bu ko gisee daal di tiit ne dellu ci yàlla fekk ne tëj nañ buntu tuub motax kon jambi wara gawantu gor gaawantu góorgóorlu ci tup balaa ñuy tëj buntu tup benen hadith bu ci dess muné wa an abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn al-khattab ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر من رواه الترمذي وقال حسن حديث xasan xadis bi ci des xadisu abdullahi ibnu omar ibn alxataab la radiallahu anhu radiallahu anhuma muy xadisu abdullah di doomu omar ibn alxataab abdullah dafa wax ne yonent bi alayhi salatu wasalam nee na abdullah ibn omar bokkoon tamit ci xale yi saxaaba yi nga xam ne ay jeune lañu woon ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalam yitti woo woon xam-xam yitti woo woon mbiru diineem doon doomu omar ibn khattab radiallahu anhuma di ab saxaabi doomu saxaabi abdullah ibn omar dafa nettali ab xadis jële ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne inna allaha yaqbalu tawbata al abdi yàlla dina nangu yaqbalu la wax yaqbalu yàlla dina nangu tuubu ab jaam maalam yu xarxir muy waxandiku mu jëfandikoo baatu qabul qabul dañuy wax ne xasu min a sixa maanaam li nga xamante ne bi mooy nangu moo gën a sew moo gën a xat wér ndax ab jaam day def ab jëf boo xam ne condition yi tax mu wér daje na ci nga ne ko sa jëf bi nga def wér na waaye amuloo garanti ci ne yàlla nangu na ko nit nit nag soxla na moom yewanal ay jëfam ba mu nekk lu wér ci ni mu ko defee waaye li mu gën a tey soxla mooy yàlla nangul kooku te léeg-léeg am na yuy mën a dox ci diggante jaam bi ak boroomam yu tax muy def ay mbir yàlla du ko ko nangul loolu nag jaam bu nekk war na cee góorgóorlu ci sellal diineem sellal xolam laabal ko ci màggal gi mu war a màggal yàlla ci xolam ak wéetal gi mu war a wéetal yàlla ci xolam sori lépp loo xam ne bokkaale digganteem ak boroomam ba loolu war a tax diggan di diineem sell ay jëfam sell sell gu tax yàlla di ko nangu ndax li gën a mën a yàq jëf mooy jëf yoo xam ne bokkaale da caa laal bokkaale da caa laxasu loolu day waral yàlla lu nangu jëf jàmm bi waaye tamit góorgóorluwaat ci dëggu bi ci digganteem ak boromam ba yi nga xam ne mooy yu sew yi sax ci wàllu bokkaale ci lu mel ne ay ngistal ak ay déggtal ak yooyu mu fexe ba raxas ci xolam raxas ci ay jëfam ngir jëf yi yàlla di ko nangu waaye tamit rafetal jëf bi mu koy def ci dëppale kook ni nga xam ne noonu la ko yàlla santaane noonu la ko suñu yonent jàngalee loolu di di ko dimbali itam ci li muy def yàlla di ko ko nangul ndax tëñëx tëñëx ak làmb toppandoo wóorul ndax mën nga caa nekk di sonn te wóoruloo ba xam li ngay def njub la gu soxla ci yow njub la xam ne yàlla dina la ko nangul kon jaam bi war nay góorgóorlu ci di yemoo li ñu tuddee xabuwul muy nanguk yàlla nanguk yàlla say jëf ndax bul rek ci tewoo ci di sonn di kër kër yi jëf ju bari lool te xamuloo ba xam li ngay def yàlla nga koy nangoom déet mais del góorlu ci di rafetal defin di xoolaat defin ba dëppook la ca yàlla bëgg loo xam ne dina tax nga dal sa xel dal ci ne lii yàlla dina ko nangu la ca des nag nga ñaan say sa sa borom euh, mu nangul la ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul la ko wala ab jaam day ñaan yàlla mu koy nangul ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ñi muy nangul ay jëf mooy ñi nga xam ne la ñuy def dañ koo def ci kaw ragal yàlla moo tax Abdullah ibn Omar mii ci boppam daan na wax naan moom doon na mbébét rek xam ne yàlla nangul na ko benn sujjóot bu ma sujjóot ba xelam nekk ci dee bu ko weer leeroon ne yàlla nangul na ko benn sujjóot ci jaamu yàlla yi muy def benn sujjóot nee na kon xelam dina nekk ci dee ndax dina xaw a tuuti dalal xelam ci ne kon moom bokk na ci ñi ragal yàlla ca la ñuy def ba yàlla nangul leen kon loolu moo am solo ci xadis bi li mu wax mooy yàlla dina nangu tuubub jaam bi li fekk demul ba àgg ci bàkkanam di dog maalam yu xarxir al xarxara mooy bu demee ba ruux bi di génn ci buli gi nga xamante ni yaa ngay dégg son boobu nga xamante ni bii dina koy def ci mel ne noyyi gi dafay dog di dem di ñëw euh, lu mel noonu nga xamante ne kii bu bëggoon a wax sax wala ngay dugal ndox sax daanaka dootul mënatee jàll ci jamono jooju nga xamante ni dem na ba daanaka ruux bi génn ba li bëri ci yaram bi bàyyi nga xamante ni léegi dee moo fi gën a jege ka dund jamono jooju bu ci nit ki tollee yàlla dootul nangu tuubam loolu di wane ne kon li nit ki mën a tuub ci dundam yaatu na lool ci niveau boobu yàlla dina nangu tuubam kon awalam nu amirkum maa lam yatadakkaru maa tadakkara fihi man tadakkara wa jaakumu nadir mooy tax yàlla bu buñ ñëwee ci moom ëllëg di ko wax naan ko na leen delloo ci àdduna ñu góorgóorlu def ci ay jëf yu baax loo xamante ne gàttañ lu woon nañ ca yàlla daf leen wax ne awalam nu amirkum maa yatadakkaru fihi man tadakkara wa jaakumu nadir ndax dundaluñ leen woon ci àdduna dund goo xam ne ci fan yi ma leen fa joxoon ngeen dund ko fa ku buggoon a baax mën nga caa baaxe ba noppi ma yebaloon ci yéen ay yonent yoo xam ne doon nañ leen bàyyiloo xel seen taxawaay bi doon leen bàyyiloo xel ci nax gi nga xam ne àdduna da leen koy nax ak doyadi gi mu doyadi ci ne bu leen ko topp góorgóorlu leen ngeen jëf ba bu ëllëgee ngeen bañ a am ay jafe-jafe loolu yëpp wax nañ leen ko mais da ngeen a dëgër bopp ndax doomu aadama nature boobu la ko yàlla bindee mooy ak dëgër bopp daa nekk ci moom kon tey buñ ñëwee ba ci kanamu yàlla di lay lay yooyu lay ñàkk pexe la moo tax kon jàmm bi war a góorgóorlu ci tuub googu beneen bi des maalam yu xarxéer mooy nit ki xamul loolu ndax day am ci façon boo xam ne dina ko dina mën a waajal tuubam wala ndax day am ci façon boo xam da koy bett ndax léeg-léeg am na ci yenn faatu yoo xam ne faatu yu bertaate la ay mort subite yoo xamante ne bi nit ki du sax séntu ne moom tay la ndakate bisam ci ay xeeti yenn accident yi wala yenn euh, problème yi nga xamante ne ay problème de santé la yu nit ki jékki-jékki rek am benn attaque cardiaque wala benn malaise wala dara rek bakkanam dem ci ci loo xam ne doonu ko woon sax foog ñi ko war wër doonuñ ko woon foog ci moom doomu aadama xamul ak faatoom kañ lay ñëw ba mën ne dina préparer mu jëm beneen bi ci des mooy yenn ñaawteef yi bu ci nit ki nekkee lànk bañ a sax ci dem ba yaakaar ne bu demee ci mujjantalu dundam dina mën nag daal di nag léegi ne ah doy na nag instant bi damay changé naa rax sama loxo ci ñaawteef yi léegi naa tuub day nax boppam yàlla ku màndu la am na yoo xam ne bu ci nit ki jeexalee dundam jeexal ci ndawam bu demee ba mag yaakaar ne bëgg na cee rocceeku du ci mën a rocceeku voilà du mën a rocceeku tuub gi du tuub gi même bu ko bëggoon du mën a nekk da ngay gis ñenn ñi léeg lekk da ngay xam ne ñii yàlla dalee na a namm ci li ñu nekk lu bon li ñu nekk dañuy gën a jëm mag di gën a enfoncé wu ci ay yàqute ci ay ñaawteef dañuy gën a jëm mag seenu ñaawteef ak seeni mbonte di gën di feeñ ci ñoom duñu pare mukk pour bàyyi ko dañuy gën a jëm mag seeni xol di ko gën a bëgg seeni xol di ko gën a bëgg nga xam ne ñii seeni jëmm sax lu ñu foowee bànneex bu ñu foowee caaxaanee ko sax nekkatu ci fobek caaxaan bi léegi da len di sax souffrir lo da len di sax sonal ndax amatu ñu ben force ak ben énergie buñu ko defé mais sori na ci bakkan bi sori way bo xamné bakkan bi moko bëgg même buy sonal jëm ji jëm ji day dem defi ji ko voilà nga xamné xeyna safara si doon tak ci mom bam waralon mu daan def caaxaan yoy ba nek xale li ci ëpp fay na waroon na nag léegi mën dem tok dal def lu bax waye mënta nek motax kon nit ki na vigilant bu bax ci lolu ci ne nit ki yar sa say jëmm ak yar sa bakkan ci li nga koy tàmmal bi ngay nekk ndaw loolu soo moytul moo lay topp boo jëmee mag kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq ci mbiru tuub ba ñu mën a saxoo di ko def ci jamono ju nekk depuis bi nga xam ne ñu ngi nekk ay ndaw mu topp ñu ñu continuer ci kaw ci loolu te liñ ciy def itam yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko hada waa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain nañu jàngi nañu jàngi nañu jàngi suñu diine ndax ñu raw fii ni ak fee ñu jëm